balu leen àq di len bal àq ci wéru koor bi ñu joggé di saxlu ramadan di wéru yërmande di ñaan suñu borom jaamu yalla buñ ci jaamu suñu borom wasaare ko ci askanu Sénégal di len wax tamit lu tax ñu wolu len fi parce que yeen yéen ay presse bi xëy na juste en introduction bi ñuy tàmbali projet bi dañu waxon le premier sponsor de Sénar Vision ak vous et nous c'est la presse ñun ñoko waxon kon dafa am lu doon wuti doon dem moo tax it bi ñuy dellu siwaat day jaadu ñu wolen ñu waxtan day jaadu ñu wolen ñu tok échanger euh, ay leral yëkkati fi ay cadeau leral di ñaan suñu borom dimbali ñu ba liñ ci jublu mu leer ci boppu Sénégalais yëp ngeen may ñu tuuti rek 1 minute 2 minute presse bi lan mo waralon lan mo doon sabab bi L'introduction de Madima a été axée sur Sababou Bercy, le tax Bercy Angebi, à Bougol, lan lañ ci bëggoon ñun donc merci beaucoup je pense que mon fi may moi. mooy Bercy dafa am nous ko bëggoon Nous nous nous sommes les organisateurs Moi, am les organisateurs ci benn côté am artistes bi ci côté les producteurs et l'artiste. artiste wante li jaral leeral mooy dafa am les employeur et l'employé. employé yi moy ñi bëgg bëss bi dem bés yi yëkkati seen Faisal fay saal ñooñu producteurs yi ñu wut ben artiste fay ko xaalis ne ko kay way artiste bi donc il devient un prestataire il vient pour faire un spectacle il faudra peut-être situer les responsabilités xam kan mooy patron wu kan kan kan fan je pense que c'est ce li jaral leeral bu parce que for nañ ci weewu bëy te day jaral artiste bi yóbbuwul boppam Bercy ay nit concept bi wuti ko dem le coût de la salle Bercy cent euros lay jar cent euros mooy coût saalu Bercy salle bi les frais mooy la sécurité mooy nettoyage bi mooy son mooy lumière loolu ñun ñi ko fay defe naa ne ñun ñoo moom Bercy ñun ñi ko fay defe naa ne ñun ñooy producteur u Bercy ñu jël artiste bi waxtaan ak moom ñu ne dañ koy yóbbu Bercy ci biir waxtaan bi mu ne ñu nii ngeen may yóbboo Bercy ñu waxaale bu jiboo kon jënd ak jaay la bu fekkente ne dañuy waxaale moom mu am lu muy jaay ñun ñu yor suñu poos am lu ñu koy jënd defe naa bu ñu jëndee ñoo moom ñu waxaale ba juboo ci li ñu juboo ci war ko koo fay dafa am ay conditions yi ci waxtaanee pour fay ko ko conditions yi ci njëkk mooy nañ xam nañ ñun ne xel ni amuñu xaalis bu tëgg Bercy ndax Bercy dafa metti dafa diis dafa bëri charge Bercy boo ko bëggee organiser fii ñi ko njëkkoon a organiser teg seen tànk foofu ngay teg sa tànk Youssou Ndour bu bëggee organiser Bercy da koy organiser si un an. ñun 6 mois lañu ñu amoon janvier lañ ko commencé ba juin en 6 mois ñu war a organiser Bercy Bercy boo ko bëggee organiser da ngay am ay sponsor da ngay am ñu la dimbali ñun amuñu woon ay sponsor kon ci suñu waxtaan entre producteur bi ak artiste bi dañoo tënk ne bu bu ñu waxtaanee ba jiboo bu ñu la waree fay lii dañuy wër ànd ci ay li ñuy woowee ay mécène bu sponsoring jeexee dañuy dem seeti ay nit ay doomu aadama seeti leen waxtaan ak ñoom projet bi lu ñu fa jëlé ñu bokk séddoo lolu moy li ñu tënk muy ay cadeau parce que tay conférence de presse bi ñuy def du conférence de presse u polémique du conférence de presse u santé wala xasante wala waxanté lu ñaaw tambalé nañ suñu cadeau wax leen ne leen ñun Paris lañ nekk def ben vidéo yónnee ko kon sénégalais xam nañ ñu né Mustapha Khadim ak Djidiack ils étaient pas contents par rapport ak ni artiste bi doxalé biñu ñu suñu vidéo wéru koor jotagul teeroogul bi ñu duggee Sénégal weeru koor teru di weeru yërmande di wéru sutura di wéru tolérance di wéru njëgal di wéru lépp suñu borom bind ci alxuraan ne day tënk seytaane kon ku fi yëngal wala nga am looy wax yow yaay sa seytaane bopp ñoom mu dem ci benn télé de la place def benn vidéo ci biir weeru koor ça a été tourné avant Korité te loolu weeru koor lañ ko def ñun ñoo jël décision ne du ñu wax dañuy bàyyi ba weeru koor bi jàll bu weer wi jeexee parce que ñu lu mu lu ñu gàtt gàtt alluwe am nañu worma am nañu yar am nañu teggin te ñàkkuñoo yàpp yabuñu sénégalais yi yàpp gu tollu ci di polémiquer wala di expliquer ci biir weeru koor ñu ne nañ bàyyi ba weeru koor bi jeex ñu def suñu conférence de presse li ñu tënkoon ñu nag moom mooy ànd dem ci kilifa yooyu waxtaan fépp fu ñu dem buñ ñu fa mayee ñaari junni moom mu bu dee ay nitam lañ moom mu jël junni yeeg téeméer ñun ñu jël ñe ñeent 4000 francs mooy 60 40 li ngay def booy wuti sponsor ak yooyu loolu waxtaan nañ ko ñu nag moom bu fekkente ne suñuy nit lañ vice versa ñun ñoo koy ëppale moom mu jël li ci néew mais fépp ñoo fay ànd kon defe naa ne balaa ñuy jóge Sénégal fépp fu ñu waroon a dem wuti fa xaalis wala wuti fa dara moom artiste bi dem na fa jëli fa xaalis xam nañ li ñu fa li mu fa jël xam nañ li ñu ko fa jox xam nañ naka la demee léegi nag su fekkente ne mbir mi dañ ko tënk ci. mu am lu mu war a def moom ñun ñu am lu ñu war a def su fekkente ne moom li mu war a def defu ko ñun am nañu sañ-sañu li ñu war a def ñu bañ koo def kon loolu dafa jar leeral ba mu leer ci sénégalais yëpp kàddu yeneen yi ñuy tamit mooy ñun ay sénégalais lañ Sénégal la juddoo Sénégal lañu ñu am fi soxna am fi ay doom am fi njaboot am fi ay xarit am fi ay ñu ñu bëgg ak ñu ñu bañ. kon pour ñi bañ suñuy non day jar ñu léral li ba mu lér pour ñi ñu bëgg ak suñuy soppé aussi day jar ñu léral ko ba ñoom ci seen bopp naxasal du am ci xélu nit ñi parce que buñu joggé ci li ñu défal artiste bi dañoo amone yéene comme niko khadim waxé waxee tëggal ñeneen parce que quand tu veux exporter la musique sénégalaise la musique sénégalaise ne s'arrête pas à artiste bi ay moromami ak ay moromam dañ fay wara liggéey lu leen yobbu dans des grandes salles mythiques war nañu dem fu nekk Élysée Montmartre Cigale Zénith defaat Bercy defaat yeneen kon weddi dindiwul tuuma dëgg la waaye leeral day baax suñu diggante sénégalais yi ak suñu digganteeg presse bi ba ñëpp xam fan la dëgg yi nekk moom dafa toog ci benn tele wax ay point point par point point bu ci nekk dinañ leen décortiquer wax leen ne la lépp li mu fa wax dara du ci dëgg benn bi ñuy njëkk tàmbalee nga xam ne moo gën a terre à moy xam nañ ne képp ku nekk ci événementiel bi xam na ne le producteur s'engage à prendre en charge la totalité des charges yi liées ak artiste bi doomu aadama boo ko jëlee bërëb yóbbu ko bërëb li njëkk mooy nga warloog moom li koy jëlee ci bërëb bi yóbbu ko bërëb bële d'un point A à un point B su demee nga wutal ko fu mu nekk fu muy dal soo ko wutalee fu mu nekk ak fu muy dal ba pare wutal ko lu muy lekk moom ñi mu àndal lii mooy billet d'avion wu Wally lii ngeen di gis nii billet d'avion première classe de Bruxelles Airlines ñu dem waxtaan ñu wut ko date bi le 29 Donc na ci télé bi le billet avion du parce que si nous ko les 34 billet avion Qui le nombre billet ki jël télé bi mu di wax ñi fa le ñu ñoo fay seen billet ñi fa billets, fu ñuy ñun ñoko fay kon billet bi mom buñ ko wutale billet avion wax ko ban bëss ngay dem ak ñi ngay andal mu ne demuma ci avion bi avion Air France laay démé bu billet bi di jar 2 millions ñun fay ko defe naa ñak ñàkk fayda mënta wess koo foofu ñu koy fayal billet bu jar 2 millions te wutal ko billet ba pare kon su bëggee wut beneen billet avion dem Air France moy fayal bopum billet avion bi éggé eggee bitim réew Paris dafa am ben hôtel bu ñuy woowee Hayat fa lañ ko wutalee néeg ñu bari ci ay àndandoom xam nañ ko Aziz Ndiaye xam na fuy ayaat Baye Ndiaye xam na fuy ayat ak keneen ak keneen mu ne daluma ayat Fouquet's lay dal kon bu dalee Fouquet's moom moo koy fayal bopp ndax ñun fi ñu ko warloo woon ak moom fi ñu diggaale woon ak moom pour yóbbu ko fa def nañ ko donc ñi ni mu ni ñu fayee hôtel boobu ñun xam nañ ko ki ko fay xam nañ ko xëy na du ay teggin ñu koy tudd parce que comme fi nekk nii wax na xalé yi dañuy faral di fooye lu am solo moy ku wax feeñ mom mo wax moo day feeñ ku wax feeñ waxu deug la mom mo wax kon day feeñ loolu mo waral tay ñu wara tok ni léral lan ci bir télé bi mu toogoon nee na mom télé bobu il a mis beaucoup d'argent ci li réussite u Bercy muy benen point ñu indi wat léral bu wane ne loolu du deug ki mom télé bi mu nekkon di wax tour bi mu tudd ne kooku dugal na xaalisam ci biir dugalul dara ci dara les droits de captation c'est deux pour cent de la billetterie Bercy droits de captation yooyu dix-huit mille euros lay jar man Djidiack ak Khadim ñëw toog ak ki moom télé boobu ñuy waxtaan ñu ne ko lii nga war a fay pour nga wane image bi Bercy ñu xaatim contrat boo xam ne dañ ko ne ñun direct

ñu waxtaan mu 000 euros yi dafa cher ñu xool kóllëreem ak xaadim kóllëreem ak jijak ñu wàññil ko euros mu 10000 mail bonjour Eric comme convenu sur le reliquat de artiste d'un montant de 68 600 euros relatif à sa prestation de Bercy du 4 juin, je vous autorise à défalquer 12 000 euros TTC pour les 60 minutes supplémentaires qui sont ajoutées sur le timing prévu. Et aussi les 10 000 euros yi considéré ak relique euh, droit de captation Nous n'avons ko ko wax nous def ko 10 000 euros wante 10 000 euros nous avons du lu mu fay mi ngi wax nañ ko jël ci pour fay

ñun 40 pour frais d'agence moi Si nous ñu 1 million 1 million yi moom jël na ci 400000 jox ñu 600000 kon defe naa ne ñun ñoo leen jox xaalis waaye événement bu toll ni Bercy ñu dénk agence de com nga indi ci sponsor 3 millions événement bu toll ni Bercy kon ñaari mbir moo artiste bi mënoo voilà jaay wala événement bi mënoo koo jaay parce que boo ko bëggoon jaay bi je pense que Khadim sur point yenn suñu problème ak artiste bi ci biir foofu mu toogoon di wax ci télé bi nee na ñëw naa Bercy fekk leen fa man maa leen nuyuwul woon parce que sentiruma nuyu leen defe naa ne porteur de voix wala porteur de drapeau wala artiste wala képp ku am tour Sénégal référence ngay doon exemple ngay doon doom bu juddoo li nga koy njëkk a jàngal mooy yar ak teggin ak worma yar ak teggin ak worma mi ngi tàmbalee ci nga fekk nit mu toog nga nuyu ko. ci nuyu bi gën a sell asalaamaaleykum li gën a yomb parce que bu fekkante ne benn fan sax ñun ñoo ko su fekkente ne benn bés sax ñaqal nañ ko ñaqal nañ ko parce que liggéeyal nañ ci lu ko defaral sànq Xaadim wax na leen ne dañoo créé concept bi tudd Wally dans ma ville mënoon nañ koo tuddee Sénar Vision dans ma ville wala vous et nous dans ma ville wala Xaadim dans ma ville wala Jijak dans ma ville moom lañ ko tuddee concept bi yóbbu ko pour valoriser concept boobu kon ñaqal nañ ko bu dee benn bés sax jëm nañ ko defar kon li jaadu woon mooy bu mu ñu fekkee ci saal boobu mu am worma ak yar ak teggin bu toll ci nuyu ñu parce que ñun ñooy employeur am moom mooy suñu employé ñun ñoo ko yóbbu Bercy muy suñu prestataire muy producteur te koo nuyuwul mënoo wax ak moom te ku la jiitu fi nekk moo lay wax fi ngay toog parce que ñun ñoo ko fa jiitu plus de un mois ñun ñoo ko organiser ñun ñoo ko defaral soo ñëwee dañuy nuyu ñu ne la néeg bii ngay dal lii mooy sa loge lii ngay lekk lii ngay nal qui est Thomas qui est Eric qui est régisseur qui est Agathe qui, est qui, qui... le expliquer la nga mon xam fan ngay ñun un projet pour moi, jox après nous gi fait ñun ñi un projet Jijak Khadim Moustapha mu ci télé ne Nous avons nuyu Moustapha nuyuwuma dans ndax sentiruma ko Jijak pas Nous nuyu un ko Nous avion yéen ñaar nous avons ci avion bi mu avion bi nuyu France nuyu wo nga ñu fekk ko ci ci romb ko nuyu xaar gis caméra yi nuyu mais lolu nuyu Nous kon nuyu ñun ñoo nous lu ñu décidé décider ñun ñoo ko début jusqu'à la fin kon nous yoy mu séparé la wante suñu borom na on est en phase ñoo sumandoo mbir ñoo ci àndandoo ñoo ci dugg ba ba muy jeex ñoo ci ànd kon xam naa juste pour continuer encore ci yenn point je pense que tey dinañ leen décortiquer parce que ñu ngi ko les 21 mensonges de Wali Seck ci pour ñu jaar ci point par point dinañ leen wax benn bu ci nekk lii mu ci wax dëgg la lee mu ci wax du dëgg wax naa leen ci xaalis bi mu wax nañu ci billet avion ñëw ci hébergement wax nañ leen ne ku wax feeñ parce que moom bu amul woon nii bu defewul nii woon nii ñun dinañu ko continuer sàng malaanu sutura parce que ñun ay sénégalais tey coow lii benn sénégalais entre benn ak benn malien wala benn sénégalais ak benn guinéen c'est un sénégalais contre benn sénégalais te ñun ñu bëgg a malaanu sutura bi ñu ko muuroon ñun muuraay boobu moom bu bëggee muri suñu malaanu sutura ñun it dañuy muri malaanu sutura saalu Bercy configuration salle bi lay yem après ma jox xaadim kan

nous avons 18 000 watts, 15 000. C'est ce que je veux dire. Il faut une pénalité de jauge. Parce que si vous avez salle, il y a 18 000 la gel. Tout le monde aménagement de 18 000. Vous avez fait 18 000, 15 000 la gel. Vous avez fait une charge, pénalité de jauge. Nous 15 000. Nous avons fait mettre nous avons nous avons fait nous avons nous avons fait nous 15 000, nous avons 9 000 final de Bercy, 9000 places. Nous n'avons pas rempli Bercy. De honte Parce qu'il y a le deug Mais le challenge, c'était de faire Bercy. Le challenge, nous, c'était de le réussir. Parce que tout le monde peut faire Bercy, mais tout le monde peut ne pas réussir Bercy. Et le challenge pour nous, c'était de réussir Bercy. Réussir comme moi, nous, les Sénégalais, nous, oui, nous, salle, fess, am nit, nous produisons un spectacle de taille, les Sénégalais font leur c'est ce qui est le challenge pour réussir. Donc, le jour du Bercy final, c'était 9 000. L'artiste a 6 351 billets. C'est ce qui est nous réussir. 6 351 billets. Nous avons fait 879 invitations. C'est ce vous est le ñu jël deux cent quarante trois yi teg ko ci loxo ne ko mayal ku la neex ñun ñu jël li si des di ko wër di ko maye jox ko press bi artiste am yi mu ñëw kenn ku ci nekk ñu jox la sa billet nga may sa famille may say xarit may yëpp ñu may suñu billet ba mu jeex ñun bi ñu génnee buntu Bercy dañoo tase ak ay nit yu yor ay invitation di ko jaay kon total li nekkoon Bercy boo ko xaymaa da day toll ci sept mille sept mille deux cent trente personnes moo fa nekkoon xamoon nañu ne.

podium bi ëpp na 69 600 euros loolu yëpp di ay charge ay charge nettoyage ñëwagul CRS bi ñëwagul police bi ñëwagul sapeur pompier ñëwagul ba ci loge bi Catherine bi artiste bi lu muy lekk ak lu muy naan ak li ñu ko fa defal ak ay loge fu ñu def ñeneen ñi ak suñuy bureau Sénar Vision am bureau vous et nous am bureau ñu wàññi bureau charge Sénar Vision bàyyi bureau vous et nous ñun ñëpp ñu bokk ci benn bureau tàncaloo ci benn bureau wàññi suñu suñu confort bàyyil ko moom confortam defe naa ne loolu defaral ko mun mënta weesu loolu bëgg bësam rafet ñu xam ne ñun presque perte nañ mais il faut ñu bàyyi ecran bi ci ginnaaw pour taarul ko bësam bàyyi écran bi ci ginnaaw parce que dañoo wër dem balaa ñuy jóge Sénégal seeti kilifa réew mi muy son excellence de président de la république ñuy profité ci opportunité bi di ko remercier parce que mooy kilifa réew mi c'est notre la république nous avons des droits et des obligations en tant que sénégalais porteur d'un projet il a été question d'aller voir son excellence pour lui dire que nous avons un projet nous voulons à travers ce projet là vendre la destination du Sénégal et vendre la destination du Sénégal moi, comme li Khadim est le projet bi concept Moi, le côté économique moi, la rencontre économique bi Khadim doon wax B2B bi amoon Champs-Élysées Moi, culturellement moi, li il faut enclencher le levier culturel

c'était un concept bo xamné ne dañu ko dañu ko dañu ko ba mu teunk ko ci ñun dañuy def Bercy bi def Bercy tam dañ ko dañ ko habillé pour mom kon nañ li point par point tout le ci suñu waxtan mi Moustapha ngi fi mi ngi fi dinañ li sans complexe té duñ honte sant nañu encore une fois le président de la république lutax parce que ay jeunes lañ ay sénégalais lañ dañoo am projet ñeu indi ko li war ci mom en tant que président de la république c'est xaliss mu lim xaliss bi ni mu taw wax liñ ko wara fay kon ñun ñoko ko ñun toogaat nañ ci yéen dañ leen démontrer expliquer leen lutax tax luñ ko xaliss jox nañu ko xaliss parce que bo xaatimee contrat da ngay yëkëti xaliss tek ko ci loxo doom adam di jag du noonu xaadim khadim mo yóbbu woon bi dem këram diko yobul account bi yëkkati khalis bu tollu takku jox ko bi mu ñëwee Paris ñu nekk ci biir sen mu tok ci télé bi néna man dew Bercy ndax khalis dinañ leen démontrer né dafa dem Bercy ndax khalis parce que gis ngeen ko bala muy génn këram mu ngi joy mu ngi joy ndax khalis da ron joy parce que khalis bi dafa defone dañ koy ëmb ci mbuus takk ko khalis bu toll lu mat plus de 50 millions indil ko ko jox ko xam nga xamadi xamadi du ko réew xamadi moy ko xamul artiste bi xamul ndax su xamone am na lu bëri yoo xam ne ko wax wala do ko def parce que khadim bi mu ñëwee da koy indil acompte ben partie ci xaalis bi centre culturel français CCF sax bo fa jouer da ngay joxe sa compte bancaire ñu virer le ce reliquat waye acompte bi ñu warlo won ak mom ci contrat bi di jax mi yëkkati na lu tollu ci 15 millions jox ko ak khadim bi mu ñëwee France ñu yëkkati li toll ci quinze mille euros compté ko ba mu mat ñu jox ko bi muy génn këram mi ngi jooy ndax xaalis bi mu voyagé ak Jijak ak nuyu leen ndax xaalis bi mu eggee France nuyu leen bi muy yéeg sur scène yaayam mi ngi naan ko demal nga woy te nga bàyyi xaalis bi kon mi ngi jooy ak xaalis à cinq minutes balaa mu yéeg sur scène kon bu mu taxaw ne sénégalais yi tey li waral ñu toog nii yëpp xaalis moo ko waral parce que xaalis boobu la ñuy leeral kon bu artiste bi taxaw ne man dew ma biir si ndax xaalis boobu muy wax. li mu toll ci reliquat télé bi mu togon ne nañ ko fayal droit de captation lu 000 ci 10 euros 10 000 euros nga nek sur la scène de Bercy ñepp gis le sénégalais yëpp nga ne yokul vous allez... vous damay woyaat mu wara jeex 23 h et quart 30 ñun ñu may na minutes nga jël yeneen minutes deux fois bersi ko deux fois six mille euros muy 12.000 euros.

fayal ko 34 billets d'avion fayal ko hébergement hôtel plus de 12 000 et quelques euros nous avons la facture dinañ ko présenter fayal ko lek, fayal ko bis bi ko Charles de Gaulle yobou ko ak orchestre bi ñep charge yi lié yep ñu fayal la ko yow indi la bitim rew dem fay permis ci biir permis bi dafa am ben date bo xam te dafa am solo dañ koy cocher ñep xam nañ ne France mënuloo fa organiser événement sans permis de travail travail bu illégal en France dafa am lu ci nasaran lu ci tuba bi wax kon ñun xam nañ li doon def Djidiack mi amna expérience ci képaru Youssou nan lañuy organiser Bercy Khadim c'est le manager de Papa Cheikh xam na nan lañuy manager groupe Djidiack c'est le manager de Vivian. kon luñu gatt gatt gatt xel en tant que producteur xam nañu nan lañuy organiser événement ak fan ngay jaar ak yeen këyit ngay lijjanti permis yooyu bi ñu ko demee di ko wut ci tubaab bi dañ ko wut pour benn bés. C'est le 4 Avant une cage case pour le 4 case est pour le 4 la ñu indi ko le 4 ou nous dem le 5 wuti une salle fay cachem yo xaalisam tëgg kon ñun ko 5, billet d'avion fayal ko fait fayal ko hébergement fayal ko permis fayal euh, euh, visa 64000 assurance 15000 ñii jijak dugal le VIP ñii ji ak duggal leen cinq bii 64000 bii 54000 ñu indi la ba foofu nga jouer le 4 wala bëtiku jouer le 5 kon les deux producteurs se partagent les frais ñun dañoo joxe moom ci boppam mu wut datam le lendemain jouer kon moom tam day fay ci charge yi parce que ñi tëgg ci biir soirée ñun xam nañ li yoon wax bi ñu demee préfecture de police Paris ne leen artiste bi ñu le tëgg na salle le 4 mu ngay tëgg Doc Ousmane le 5 ñàkk xam mi ngi weesu ci final Champions League du finale Nous nous sur la scène de Bercy le 4 watch sur la scène de Bercy le lendemain il dem jouer donc Osman, Saint-Denis loolu la nga Champions League wàcc Nawetal. c'est pas normal c'est pas une vision pour un artiste loolu Waro. kon comme ñun ñoo ko nous charge fait defal ko loolu spectacle boobu la fa

Jimi Mbaye mi ngi woon ci scène bi orchestre mom artiste bi dafa bëri ay nit yo xamantene ne woon nañ ñu suñu téléphone dañ ñoo respecté ñoñu ñun dañ leen di wormaal dañ leen di sutural looloo tax yobbu ñu police ci biir salle parce que buñ ko defoon dañ naan sénégalais yaangi ngi reyante seen biir te c'est pas l'image que nous avons envie de montrer ci Sénégal. it baa ngi noonu ñu delluwaat le 26 jox ko 4900 euros ñu delluwaat le 2 février jox ko 9000 euros.

Tout le ñu est suñu bi comment Sénat vous et comment Khadim Moustapha et vont démontrer présenter les 21 mensonges de Wally parce que benn bu ci nekk point bu ci nekk dinañ leen wax ne lii du dëgg lii mooy dëgg moom lii la wax te lii mooy dëgg taxaw na nee na moo ñun ñi jël preuve

am na solo ñu ko ko tuddee si ne ma Tapha Khadim dañu bi bopp yi maye parce que ñun ñoo ko moom suñu neexee ñu ne bii bu ñu ko jaayee cent euros deux euros lañ parce que ñun ñoo moom ñun ñoo fay ku jënd yaa moom ñun ñoo jënd saal bi moom bés bi ñun ñoo jënd artiste bi fay ko cachet waxtaan ak moom ne ko dañ lay yóbbu bés nga joué kon expliqué nañ leen affaire xaalis boobu naka la def jaar ci digg bi ne leen jour bi ñu demee palais war a gisante ak le président de la république audience boobu li ko sabab DC wu président bu wax Thierno Youm moo ko sabab ma nekk Paris Omar Youm ma nekk Paris Xaadim ak Diabo woo ma ne ma ñëwul man maa ko yëg ci guddi dix heures ci vingt deux heures ma wut SN Bruxelles ñëw yére bi ma sol Diabo moo ko jël sama kër indil ma ko aéroport ma changé wu fekk ñu ne ko Xaadim woo ko téléphone ne ko nañu tasante foofu waxtu sàngam mu jiituñu fa ñun dugg ne ñun ñu ñëwee du ñu yow ñu wut audience fexe am suñu audience ne dañuy dem seeti le président de la république présenté ko projet wax la heure bi ñu fay tase nga solo ba jekk yaa sa manager ngeen jiituñu fa dugg waxuma la dugg ba pare mais les gendarmes yi ñeneen bu keneen dugg ñu ñëw ñu ñett ñu téye ñu ci porte bi parce que gendarme bi xamul kan moo audience bi naka la def dañ koy jox message ne ko diw ak diw ak diw xaadim woo benn kilifa kooku ñëw génn ñu ñëw jël suñu ci bunt bi dugg ki doon seet bi kilifa réew mi mën naa bañ a xam naka la demee mais bi ñu toogee ci leeral situation mu jox ñu kàddu ñun ñu am mat ak fulla bu toll ci ñun ñoo organiser des ñun ñoo jël kii yóbbu des ñun ñoo fay saal bi lii ak léegi lii waxtaan ak moom mu demee fa ni mu fa demee sànq xëy xaadim wax na leen mbirum visa ak importance bi mu parenthèse rek dañ ciy jaar jàll li ñu bëgg mooy moom comme tudd na ko ba yëkkati benn nit ne sama garde du corps la jógal taxaw maa la yóbbu kooku ñun ñoo ko yóbbu bés te moom la mandargalee wax ci parce que moom la indi présenté ko Sénégalais yi ne kii sax ñu na kon moom na expliqué Sénégalais yi lu tax bis bi muy dem mu taxaw aéroport fay lu toll ci 7 millions lu tax mu fay loolu ak li des nan la koy fay ak kan la koy fay ak naka la demee ñun am nañu preuve yeneen comme xam ne xeex wala waxtaan wala nu mu mënti def tey première prise de contact la rek mais ñun am nañ suñu preuve am nañ suñu élément élément par élément kon foofu la ñuy yem ci yéen ñi encore une fois ñu ngi profiter ci opportunité bi ñu ñu may pour remercier le président de la république buñ ci paree ñu remercier aussi Youssou Ndour par rapport ak li ñu wax parce que bu ñu new loolu wuti leen xaalis ngeen génn billet jaay ko billetterie sauvage kon amaana mën nañu yem ci cinq mille billets tey bu ñu egsee ci jaay lu toll ci sept mille et quelques billets mën nañ ko ko parce que bu bu aram na ko gërëmee ca wuti nañ xaalis xaalis boobu aussi Elimane Lam moo ko dañuy jaar ci abal xaalis jënd leen billet ngeen génne ko jaay dañuy jënd jaay jënd jaay moo taxoon ngeen gis ma ci vidéo bi may leen di jënd billet ko génne parce que bu ne dañu bàyyi ñu koy recouvrer ñu ngi wut solution pour fay suñuy bor ñu ngi wut solution

ñun defaluñu lu dul yóbbu ko foo xam ne waaye juróom bu góor papaam mosu faa dem ak boppam benn yoon la fa dem te Youssou Ndour ko yóbbu benn yoon la fa dem te Youssou Ndour moo ko fa yóbbu ñun li ñu def ñun li ñu def du lenn lu jël artiste ak un concept ak un projet jële ko fii ba ko fa yóbbu Youssou Ndour bi ñuy am 30 ans yóbbu gisu ko ko yóbbu bés Youssou Ndour bi ñuy am 30 ans gisoon na ko ko yóbbu mu woy ay Kilimanjaro ay ay euh, euh, waaju bu góor Alioune Kassé ñooñu la Youssou Ndour tolloon ba jamono jooju adduna di dox nga am 30 ans gis ay jeunes yu mel ne yow ñu jël engagement wu porté wu projet man mii damaa jaay sama oto di jag jaay ñaari oto xaadim dem feneen lépp loolu dañ koy expliquer Sénégalais yi du tey complexe bi toog wax lan la ñu daj ci lii dañoo sonn ci bés bi ñu koy organiser dañoo sonn ci bi ñu koy waaj a organiser kon nag loolu bay baabu du dundee mënuñoo sonn ci loolu daj ci lu nekk ñëw toog ci télé bi ñu ñuy xas ñu am yaay am baay am ay. soxna am ay doom su ko suñuy doom di daaw ci dëkk bi ñu naan seen ñii seen papa moo sàccoon xaalisu artiste lu ñu ko nanguwaat ah. dañuy expliquer Sénégalais yi xam ne amee lu ñu ko dërëm yore lu ñu ko dara ñun ñoo am problème actuellement mais moom amul problème bi ñu egsee ci Bercy le 3 artistes dafa am lu tax ñu en ba Bercy nga jël ci bëgg ko def événement entre 20 euros xanaa ñun lu ñu ñàkk yërmande ñàkk yërmande bu ñu woowee sénégalais yi le 4 juin. ben yoon la sénégalais yi fay xam lan mooy yoonu ndaw dajale sénégalais ak ñi xam ne bitim réew metti sénégalais yi nekk bitim réew lu ñu am ñu koy yónnee seen waa kër fi on a un droit de regard sur tout ce qui se passe au Sénégal nous sommes des sénégalais de la diaspora ñun dañoo tukki woon dëkk bitim réew dëkk fa xam nañ lan mooy am salaire weeru dee nga fay sa kër yónnee Sénégal lu ñu lekk jënd loo lekk yàq sa njaboot lan moo lay dese kon bëggal sa xol bu ñu organiser benn événement fay bi benn yoon lay doon mooy le cas ñu def ràcc entre 20 euros ñu jot ñii war a fecc ràcc boobu ñun ñu woo leen dañuy jaar seen tour ñu woo nous woo Umu Sow woo Mbaaco woo ñoom woo Salaam woo ñëpp waxtaan ne leen ñun ñoo leen fayal seen billet d'avion mënum ku dul Umu Sow fay ñu ko ñi si des yëpp ñoo fay seen billet fayal la sa billet d'avion fayal la sa hôtel teg la lu tax ñëw ba France di dem di fecc jouer ci le trois ñun ñoo waxtaan ak ñoom ne leen artiste bu dem ci ràcc jàppal ne tey doo dugg prison ñun ñoo ko wax ñun ñoo wax artiste bu dem ci ràcc bi hôtel bi nga doon fanaan bu ñu neexee tey ñu daggal ko artiste bu dem ci ràcc bi suñu ne wax leen expliqué leen lu tax ñoom ñu defe ne dañ leen andul ci erreur dañ leen a jekk-jekk rek indi leen ay caméra ne leen ràcc leen filmé leen ne leen ràcc leen ñoom tam ñu ràcc bi ñu ràccee ba ñii nga xam ne ñoom moom ràcc bi ne leen ràcc bi kenn du ko fi ràcc avec bi ñu leer si bopp seen bopp ñoom ñu xam ne ci bii du am parce que mënoo organiser événement bu toll ni Bercy ngay communiquer sur un beneen événement en amont de Bercy loolu manque de manque doo professionnel tu peux pas faire Bercy et organiser un événement en ci de Bercy tu peux pas faire Bercy organiser beneen événement buy fay xaalis après Bercy sénégalais de la diaspora encore une fois je leen di remercier parce que 6000, 000, et quelques personnes yi fa ñëw Sénégal waa Gambie la ñëpp ñoo ñu jàppale ba li ñu am kon ñooñu ñun am nañu warma ak sutura bu toll ci defal leen la mm. foofu la yemal jox la jébbal leen kàddu